aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokk yi nga xam ni ñooy bàyyi xel wilaay TV yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñu ngi fii tey Daaru Xuddos kenn ku ne xam ni itam ñu ngi waaj bës bu màgg bu tedd te muy bésub màggaluk Isriina Muharram di bés bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul jóge woon njaareem ñibbi si Touba dëkkaale ci ak boromam kenn ku ne xam ni itam ci taarix màggal ko baaxoon nanu ko def fii ci Daaru Xuddos Euh, ginnaaw ba nu jotee ndigal ci Cheikh mun Muntaxa mi nga xam ne moo fi Serigne Touba Xaadimu Rasuul wàcc ba tey suñu kilifa Serigne Ahmadul maxtar mi nga xam ne mooy kilifa Daaru Xuddos tey tombek fukki fan ak ñaar ci weeru août ci atum 2022 di yu màggal mboolem Daaru Xuddos yëpp buntu kër yëpp dajee fi ngir seetal barab bi maanaam seetal ko ba teeru gan ñi loolu yi ci lañ xewoon tey ci àjjuma ji kon dañuy fas yéene rek ànd ak yéen dugg ci biir ndax kenn ku ne xam na ni comité bi di diwaan nga xam ni moo lëkkale mboolem buntikat yi Cheikh Mamadou Moustapha taxawaay bi ñu am ci organiser mbale mi ñoom itam fas nañ yéene dem ci ñoom ci comité social bi nga xam ni yam ñoom itam taxawal nañ ko ñu wax ñu fan la mbale mi toll waaye itam taarix li dëgg-dëgg ndax kenn ku ne xam na ni baaxoo nañ koo def jiitale ko ci màggal gi kon loolu lañ leen bëggee di tey ci Wilaya TV kenn ku ne xam ni itam suba incha allah rabbi ci samedi bi war nañoo dem ci consultation gratuite bu mag bi nga xam ni moom la wilaaya organiser ren ngir waajtaay ko boole ko ci waajtaayu màggal gi waaye itam mën dimbali néew ji doole ji ba mboolem jàngoro yi nga xam ne am nañ ko tey mu jafe ci lool ci ñoom ñu faj ko ñu daal di leen ciy dimbali. loolu itam dañ leen koy lancé waat comme information suba lay doon incha allah rabbi 8h ba 16h fii ci école Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké bii nekk ci sàq mi kon dañuy dugg ci biir mbale mi wan leen nan la taalibe yi nekk tey ci Daaru Xuddus waaye itam xoolal leen. comité d'organisation bi nga xam ni moom la diwaan mettre en place ñu daal ñu wax fu mbale mi toll. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yi ñu leen di nuyu yéen ñëpp ci turu sëñ Laat Aliou mi nga xam ne mooy yore commission sociale bi ak ci turu sëñ Sia Ndiaye maam say mi nga xam ne mooy chef de village topp ci moom eh, mbale mi eh, tàmbale nañ ko tey jii biñ xëyee ñu bari. huit heures fi la leen fekk liggéey bi biñ xëyee ba léegi ñu ngi ci wax dëgg yàlla nit ñi jàpp nañ ci bu baax a baax mel ni maire wax dëgg yàlla yabal na ay oto waa ICC ñoom it yabal nañ seen oto waa Touba ca kanam it yabal nañ fi euh, jël bi ak seen jumtuwaay yëpp ci yi ñu war a maas ak yi ñu war a tibb wàllu kii itam wàllu pompe ndox mi ci kër yi nga xam ne nii eh, kër yu eh, am ndox la ba fees dell itam moom it am na ñoo xam ne ni indi nañ seeni moteur ba ñu ngi koy mang loolu daal fii lañ ci tollagoon xam naa nag xëy na fii ba fii ay quatre heures cinq xam naa lépp dana yemb ah, wax dëgg kilifa yi ñëw nañ fi ku mel ni sëñ Cheikh Lappé nga xam ne moo jiitee mbale mi ñëwal na fi boppam indi fi ndox mu baree baree bari Eh, eh, indi fii itam ah ndigalul sëñ Muntaxa ci xam ni ñi ngi koy def moom noo koy ànd ci lépp wax na itam ne fas nañ yéene buñ jógee ci lii rek mbale mu mag mi ci lay topp ba ñu gën koo waajal nga xam ne bii daal mooy firndeel ni mbale meneen mi ci topp rek mi nga xam ne itam màggal gu ñoo koy waa màggal gu mag gi ñoo koy jiite gu ji gu mujj gi yaakaar naa ni kon loolu daal bu fi lañ tollagun nu ngi rafet njort nag ki nam daa demee rek dana ni demee ndax yaakaar naa fii Daaru dos ak li ko wër yaakaar naa ba ci trente bi ba ca eh, yeneen quartier yi nga xam ne moo ne fii yëpp fas nañu yéene balaa ngoon a jot mu set wecc ñu ci sant nag bu baax a baax waa commission organisation bi wax dëgg yàlla ñëpp jàpp nañ ci kenn desut ñu ngi ndokkeeli sëñ Laat Aliou mi nga xam ne ni moom mooy jiite commission sociale bi Eh, ci diwaanul muridina di sant sëñ Ousmane mi nga xam ne nii moo yore diwaanul muridina eh, ci turu sëñ ak ci turu mbooloo mi ci turu sëñ Amadou Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Xuddoos ñu ngi ñaan yàlla yàggal ko fi yàggal ko fi mu àggalay naalam te ñu ànd koog moom di sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñu bëggoon xam ba mbale mi buñ koy woote maanaam dëkk bépp la woo wala Euh, jëmmi barab bii ñu nekk rek muy Daaru Xuddus waa mbale mi moom tubaa gépp la ñu woote ay soon lañ ko def boo xam ne ni bàyyiwuñ fenn fii ba Okaas ba Daaru Minam Daaru Xuddus ba Madiyaana benn dëkk fenn lañ bàyyiwut fépp la ñuy fépp la ñuy bale fu nit ñi mën a àgg rek dañ fa àgg ndax Touba la ñuy wax tubaa la ñuy seetal waaw ndax sëñ Modou Moussa moo ko jëkk a def te bi mu ko defee daa def ci mbubboom wane ni fii ku fi setal tàggum ramatu rek koo fi setal suñ borom mën na dana daan la defal loo xam ne day kawe njot moo tax nag ñi ku ko dégg ku ne ñëw nga xanaa kàddu yi ñuy tëje mooy di sant rek di sant it sama waa daayira daayira seet daayira sidd fil mahabbati wal walaa ili sayxil xadim muy daayira kër sëñ Ibra Absatu te sëñ Seex Waalo di njiit waaw ñu ngi sant ñëpp dégisement yëpp ñëw nañ jigéen ñi ñëw nañ góor ñi ñëw nañ ñu ngi leen sant bu baax seen taxawaay mbale mi wax dëgg yàlla waajal nañ ko wàccaay wi nga xam te moom lañ ko daan waajale ci communication ci soññee ci ay démarches yoo xam dañuy wër ci mbooleem ñi ci daan jàpp ci ay oto ñi ci daan jàpp ci carburant ak euh, kuréel yi nga xam ne ñoo yëngu ci bale ci dëkk bi lu mel ni la Matlabul ni lu mel ni Serigne si am seen Latif léegi la fi jógee na nga koy nuyu di ko siyaare ak euh, yeneen kuréel yi nga xam ñoo ne ci dëkk bi yëpp ci daan yëngu ci wàllu bale fu nekk dem nañ fa soññi leen wax leen importance bi nga xamante bi mbale mi am na ko ak waajal gi ci waajal bés bi bi ñu xëyee itam ca suba euh, ba léegi noo ngi ci euh, camion yi nga xamante bi ñoom lañ ñu baaxoo abal camion yi ci bari ñëw na waa UGC nga xamante bi ñoo yore wàllu mbale mi ci dëkk bi ñoom itam bi ñu xëyee mobilisé nañ seen équipe bi ñu am yëpp ak seen i matériel andi leen fi ñu ànd ak ñoom euh, kenn ku nekk xam na ne bis bisu Serigne Touba waaye kenn ku nekk itam xam na bu baax a baax ni bis bi bis la boo xam ni bis bu ñuy waajale Euh, ñëwu sëriñ bi ci dëkk bi la ba tax na ku ne jox na ko yitte daayira yi kër gi tàmbalee ko ci diwaanu Muridina ak mbooleem daayira yi nga xam ñoo aju bunt kër si Amadou Moustapha yi yëpp ñëw nañ ñu ànd ko ak ñoom fii ñu taxaw nii euh, nga xam ni mooy pàkk bi nga xante bi ni fii la waa Ittihaad at Bayil Xaddiim di waajale bés bi euh, ñoom itam ba ñu xëyee ba léegi ñoo ngi ci ànd ak ñun liggéey bi euh, gis nañ seen taxawaay ak seenu jàpp ba gëm nañu ni daal mbale mi na mu daan mel am nañ ci lu kawe njortu am nañ ci lu ëpp lu toll noona ndax heure bi daan daana fekk ñuy woote fo ci ne ci dëkk bi di wax jal sàngam a nga fa jal sàngam ma nga fa ci fii ñu toll ni tembe mel na ni mboolem fu ñu daan woote wax jël rek mbooloo mi sot nañ ko ba ëpp nañ ko doole ba xam nañu ni euh, lañ daan am heure bi am nañ lu lu lu ko fawxa kon sëñ Balla li ma ci mën a wax mooy euh, commission sociale diwaanu Mouridina ci njiital sëriñ Abdou Lahad Mbacké Aliou ak Baye Sëñ Diom Makhtar ak man mii di wax ak yéen ak Baye Sëwru Mbay ak équipe bu village bi nga xamante bi ñoo ne ci village bi ak mboolem social yi nga ñoo jóge ci daayira yi sot nañ mbale mi ànd ko ak euh, euh, membre daayira yi ba am nañ ci lu kawe suñu njort xam nañ ni daal sëñ Tuubaa lañ koy defal xam na ñu dem Cheikh Mamadou Moussa moo ko daan defal boppam waaye xam nañu itam euh, képp ku ci setal lu tolloo ak ak ak ak ak ak kaafu kaafu xëti suñ boom subhaanahu wa taala lim ci digge mooy dana ko dana la ko faggul ci àjjana ci ay dëkkuwaay lu toll noonu wala lu ko kon nag noo ngi xam le ni rek sant dañ ci def gërëm lañu ci def ñaanal ñi ci ñëwoon ak ñi amoon yéene ñëw ca ñëwuñu suñu moom yàlla defal ñu taw feex bañ mën a màggal ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil aalamiina lépp dëppoo euh, bëggug sëriñ bi lépp dëppoo bëggug sëriñ bi. ñu xam ne ba bi rek bale wala biir dëkk bi wala mbale mi Touba gépp la bale amma jëmmi nag ni nu ko yéenee mooy fépp fu fu mbale am fu fa mbale nekk ci Touba. ñu àgg fa ak suñu matériel bale ko ba mu set dañoo tàmbalee fii nag ci pàkk bi di xam hamdi di daarul xuddoos di béréb bii nga xamante bii ni fii la sëriñ bi waaje woon dem ci liggéey ba bi mu dellu siwaatee ci dëkk bi mooy bi ko fi si amoon suwaa indi wee indee moo tax ñu dëkk fa tàmbalee ci ndigalu sëriñ Ahmadou Mokhtar mi fi nekkal si Amadou Moustapha ak si Amadou Muntaxa mi fi nekkal sëriñ Touba waaye fépp foo xamante bii ni mbooloo mën na fa àggi rek fas nañu yéen a àgg fa ndax bis bi li tax ñuy def mbale mi mooy bis bi sëriñ bi financé fii ci dëkk bi bis bi sëriñ bi financé fii ci dëkk bi mbooleem fu malaayka yi mu xarabina yi mbooleem fu ku baax nekk gunge si woon na ko wetli ko ci dëkk bi ci guddi googu ba bët set bis boobee nag Cheikh mu Moussa dafa wax ni saa bu dellu see fépp fu fi nit fu fi fu fi fu fi ku ko gunge si woon dana dellu siwaat fanaan ak moom ci dëkk bi mooy malaayika mooy rawxaan mooy jinne mooy lu mën a doon guddi xasri na muharram gi bu jotee ñooñu dañ dellu si fii ci dëkk bi fanaan fi ba fajar ci la waxee ni waxan juree jooju ma wax ni ku fi ak ñoom bu fajaree ñu jégal ay bàkkaar ba nga mel ni na nga gane woon euh, àdduna kon moo tax ñu ni dañ sedal dëkk bi ngir ñooñu nga xam dañuy ñëw te buñ ñëwee fu fu fu le neex la ñuy toog buñ ñëwee kenn du am lenn lu la jaaxal ak taq-taq ay ak yu méngoowul ak dëkk bi moo tax tàmbalee nañ ko daaru xuddoos waaye amul fu fuñ ko yemale ndax xam nga ne bu nu génnee ci màggul Daaru Doos dañuy dugg ci màggalug di safar di bis bi nga xamante ne sëriñ bi moo waxoon nañ koy sant la suñu borom subhanahu wa taala kon nag bu ñu tàmbalee fii tey fu nu mën a àgg ji rek dana dana dana dana gàttanduwaale bis boobee noonee donte foofa noona xëy na ñooñu dañuy jóge ci seen i kër ñëw màggal si dëkk bi dañoo jàpp ne rek xëy na fii mooy baas bi waaye fu waaye nekk rek fa war a màggale loolu moo tax Daaru Xudoos lañ ko wootee fi lañ ko tàmbalee waaye fu kër nekk ci Touba rek fas na ni yéene buñ fa yàlla mën a yóbbu ñu àgg fa ñu àgg fa incha allah rabbi jërëjëf kon nu sant rek gërëm ca wax ni rek nan waajal bis bi bisu barke la bis fari bàkkaar la gis nga ëllëg lu sonal nit bàkkaar ko teg ca bis bi day fari bàkkaar ëllëg lu sonal nit rek bàkkaar la kon nag ginnaaw bis bi day fari bàkkaar nanu ci profité lu ci soññ ci sunu bopp def ci lu baax ngir ñu ma tàqale ko ay bàkkaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa